mu daal di ñëw ci les faits maître s'il te na ñëw tuuti su ko defee ñu daal di ko jël dégg yi nga xam ne def si day ñëw tuuti voilà ñu ñëw tuuti ñu moytu tali bi ah ñu ñëw tuuti moytu tali bi oui c'est voilà maître ñu ngi lay nuyu ginnaaw ba nga duggee ci biir ndax gisante ngeen sa clientèle di Bah Diakhaté waaw euh, Bakh ñu ngi gisante depuis altine mhm. euh, lundi Pentecôte ba léegi mhm. lañ ko téye woon mu jaaxal ñëpp xamuñu woon lu ñuy njëkkalante baarayul nit sàccul jaayul dorog deful dara waaye ñu xamul lu xew ba tax ñu gaawantu ko di altine li muy nekk feet yëpp ñu liggéeyloo police ñu nekk ak ñoom ba deux heures du matin loolu yëpp li koy waral mooy ba ñu ngi koy bëgg gund xataal waaye mënaluñ ko dara ba jaxate dafa xam li muy wax te lépp lu wax yor na ay firndeem moo tax biñ ni ñëw dañ koy àttee ci ñaari infraction yi nga xam ne ñun xam nañu benn taxawu ci bu njëkk bi mooy ñu ne dafa offensé mooy tooñ mhm. koo xam ni am na doole jiitu réew lu ko jiite réew eh, lu mu bokkal ak njiiti réew eh, daanaka daal Sénégal léegi dafa am lu masul am mooy premier ministre léegi dafa am délit d'offense au premier ministre <laughs> bu leen neexee ngeen ree <laughs> lu masul am waxuma Amérique waxuma France waxuma Sénégal waxuma Burkina Faso offense au premier ministre moom <laughs> nata leen mu ngi soog a am en mille 24 te nekkul ci sunu code pénal kon ñun côté boobu dañu nekk à l'aise pour pour damat xotti li ñu topp ba jaxate deuxième bi te baa du nit ku wóor lu mu wax daf koy firnde joxe preuve ñu ne dafa génne fausse nouvelle yéen ñu déglu ba jaxate lan la ma sa wax loo xam da koo sos koy inspecteur Colombo. baa du saaga du sos. dëgg am na ñu ñu xàmmee ci sos ak saaga baa bokk ci. fédération fen ak saaga baa xamul loolu bokk ci fédération boobu. fédération wax dëgg lu métti métti nag dëgg day tàngalee léegi. kooku mooy Bah Diakhaté. kon rendez-vous altine. incha allah le vingt sept. le vingt sept mooy altine bi dans ñeenti fan rek incha ci ñeenti fan rek. Mhm. Euh, Olof Ndiaye dafa wax lu neex lu rëy. Hmm. Olof Ndiaye mu ne ku mos jàkkaarloo xam ne jëw a neex. Ba Jaxate dafa nekk fii moog imaam Cheikh Abdou Tidiane Ndaw ñoom rek. ñu di leen jëw di leen wax looloo xam ne ñoom ñu ko. Hmm. di leen teg seen der loo xam ne defuñu ko. Hmm. waaye buñ jàkkaarloo fi max na nekkee benn doom dina neex ndeyam. merci merci donc procès en français. Euh, euh, le parquet de Dakar je veux dire monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dakar vient de placer monsieur Badiakhaté et imam Cheikh Ahmed Yandaou sous mandat de dépôt. Ça veut dire qu'ils vont en prison jusqu'à lundi pour être jugés. Euh, Qu'est-ce qu'on leur reproche À Badiakate et à l'imam Ndao. On leur reproche d'avoir offensé quelqu'un ayant les prérogatives du chef de l'État, notamment le contre-saint deuxième reproche on leur donc reproche d'avoir diffusé de fausses nouvelles okay. vous verrez que Bah Diakhaté dans son éducation. Imam Ndao, dans son éducation, ces deux personnes ne peuvent pas prononcer, outrager ou offenser une mouche. Donc nous sommes à l'aise pour cette première infraction qui n'existe pas. Et on va le prouver, on va le démontrer à l'audience du lundi, Inch'Allah Rabbi. Maintenant, la deuxième infraction visée concerne la diffusion de fausses nouvelles. des vraies nouvelles. Et qui connaît Badiakate et qui connaît Imam Cheikh Abed Yandaou, ce sont des personnes incapables de mentir, mhm. incapables d'inventer des choses. ils sont tellement rigoureux. Mmh. tellement honnêtes qu'ils diffusent toujours la bonne nouvelle et sérieusement et rigoureusement par conséquent lundi inchallah Rabbi mm. nous vous donnons rendez-vous à l'audience des flagrants délits et nous serons à l'aise Bah Diakhaté sera à l'aise Imam Alioune Ndao sera à l'aise imam Cheikh Tidiane Ndao excusez-moi imam Cheikh Tidiane Ndao sera à l'aise tout le monde sera à l'aise du côté de la défense ça nous le disons aux Sénégalais Cheikh Ahmed Tidiane Ndao et Badiakhaté n'ont absolument rien fait et ce qu'on leur reproche ne tient pas ne résiste pas à l'analyse rendez-vous donc Alunjante pour la grande victoire de la vérité la grande victoire de la vérité. En tout cas personne aujourd'hui ne peut empêcher les Sénégalais de parler de l'homosexualité. Les Sénégalais continueront à combattre l'homosexualité et cela qui aide les homosexuels. Il faut que ça soit clair. merci ginnaaw euh, présentation bi ñu bëggoon nga wax exactement nag nga gise mbir yi. waaw maa ngi tudd Cheikh Baye Konté di muqaddam ci kër Cheikh Ibrahim Niass di membre ci activiste républicain di xarit ci Baba Diakhaté aussi. incha allah. d'accord alors mën a jàngee tey ci kàddu yi nga xam ne baa Diakhaté daal di ko yëkkati ba tey mu jural ko li ni mel. non Baba Diakhaté man damay wax ni Baba Diakhaté li mu wax. wax la joo xam ne ñun ñëpp wax nañ ko. wax la joo xam ne ñun ñëpp assumé nañ ko te ñaareel bi dama am kersa dama am gàcca ci réew moo xamante ne nañ mooy réew Cheikh Ahmadou Bamba di réew Cheikh El Hadj di réew maam El Hadj ñas ñu ne réew moomu tey ci lañ arrêté nit parce que dafa wax di xeex contre l'homosexualité muy lan muy al misliya al jinsiya arabi di ko wax loolu. muy xeex loolu ñu arrêté ko ci loolu franchement man dama am gàcce ci loolu franchement loolu laa am lu may wax ci côté boobu. waaw taxawaay bi ñu ci euh, war a am mooy taxaw jàkkaarloo